jirë ngeen jëf tali bi ak bakkan yi ci des l'observateur mi ngi ñuy xamal xibaar bu tiis juróomi doomu aadama yu bokk benn famille dëkk ca Medina Baye ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident ubbil yéenekaay bi ak tàkk la ñu demoon ca Ndramé Escale bi ñu ñibbisi watab 7 place bu ñu jëloon moom bëkkante ak benn watab Peugeot 307 bu doon doublé ab Jakarta wàccaameen yi newoon ci 7 place bi ñett ci ñoom fa saasa la ñu faatu ñaar yi ñi jële woon mu di chauffeur ba Momat Thiam toll ci fanweeri at ak juróom-ñett Jatu Thiam tolloon ci ñeent fukki at ak ñaar Fatou Thiam fanweeri at ak ñett Awa Mbub ak benn xale bu am at bu ñu naan Roqaya Touré jëyee joojee waral musiba mi journal bi nee nañu mi ngi xewee ci dëkk bu ñu naan Kiwi nekk ca booy dugg Kaolack ñu wax ci wax ji président Macky Sall waxaat ci mbiri góor jigéen yi ci Sénégal la Sénégal ak Les Échos wax ñu ci xëtamu njëkk ne président Macky Sall féddali na la mu waxoon journal las nañu ci week-end bi ba muy dalal ay kilifa ci la ne na seenum xel dal ndax lii feeg maa ngi ci bopp réewum Sénégal ak ngóor jigéen du fi masa dagan xel xalaatu ko kàddu yooyee njiit réew mi waxaat ci mbirum góor jigéen ci réew mi moom la réew mi quotidien xëy ci xëtamu njëkk mu di li fekk ngi may def may jiite Sénégal ak ngóor jigéen du fi masa dagan dafay xaraam ti faaxan Les nañu Macky Sall nee na non non et non góor jigéen au Sénégal bu lijjantee coowal ngóor jigéen yi bu noppi moom Macky Sall na wax ci coalition tous tasar mu di waa Benno Bokk Yaakaar journal nañu fa Mbaye Ndiaye keroog mu ne Amadou Ba bul samp sa ndënd naan yaa ngi doon candidat ci Géejawaay moom Seydina Fall Bougazelli samp na fam dëndëm ba déclaré candidature nee na mairie de la ville bu Géejawaay moom la bëgg a jiite moom la bëgg a doon ki ko doon jamono ji di Aliou Sall yéenekaay bi nee nañu Seydina Fall Bougazelli sànni na ko fa ay xeer yu rëy fësal ak njàppaleem ci Lat Diop ngir ñu jële Aïda Sow Diawara ca Golf Sud L'Observateur nañu loolee lépp mi ngi ko waxee ci meeting bu mu gonte woon keroog samedi ca fiic mi ci kaw nag mbooloo mu bari jigéen ñi fësoon ca tey L'Observateur jàngee ci na ci politique yaa ngi nax sa bopp wax na sax ci làmmiñu boppam ne ñi doon songu président Macky nañu waaj te xam ne ñëw naa te dootuma leen mayeti dara keneen ku fas yéene maye dara ci élection locale yi la kay nee nañu moo di Zahra Iyane Thiam ministre microfinance démb ba muy inauguré siège bu APR ca Sicap Liberté fa la ne am na yéene ak bëgg-bëgg ngir jiite mairie bu Sicap waaye bala mu ciy sori dafay bàyyi ba parti bi mu bokk di i nii mu di maire bu Ndar Mary Teuw Niane mi déclaré candidature bu yàggul ne dafa bëgg a jëlee ba ci loxo yi Mansour Faye wax na ci xët mu njëkk l'Observateur ne moom Mary Teuw Niane candidat la te candidature am mbindeef mënu wax ba mu dellu ci ginnaaw mu ne askan wi ñooy xool ki leen doy fal ko maire waaye du benn nit rek mooy daggee ca làng ga jóge ci àll ba di leen tànnal ki war a doon seenub maire keneen ku xaw am taxawaay bu ni mel La Tribune nee nañu moo di Adama fay nee na moom àndul ci li président Macky Sall ne bu kenn dem ci élection locale yi ak beneen liste bu bokkut ak bu Benno Bokk Yaakaar bi Adama Faye nee na ko monsieur le président defuma ko nguur gëpp dafay rey ba nga xam ne buur dafay taxaw joxoñ ab xeejam ñëpp jug su ma sama parti jàppale xëyrun su jàppalewul ma dem ci ak beneen liste ñàkkante ko ak yéen ñi ko doon ñàkkante ca Parcelles Assainies di Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye Le Quotidien nañu fantasi roog xef ak tibbantey tànk ya nekk woon ca Parcelles Assainies jeex na ñoom ñaar juboo nañu Le Quotidien nañu keroog samedi ji weesu cib conférence religieuse bu réseau ànd liggéey Parcelles Assainies Xadijatu Diop Sow jiite ñoo ko organisé woon ca terrain akapes bu Parcelles Assainies fa la ñu joxantee loxo fa la Mbaye Ndiaye waxee ne ak féewaloo xajul sama digganteeg Amadou Ba xajul suñu digganteeg Moussa Sy mi bàyyi yëppam ñëw ànd si ak ñun la si ne kay nañu Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye juboo nañu joxante nañu loxo madame Xadijatu Diop Sow ak ñi mu àndal ci réseau ànd liggéey Parcelles Assainies ñoo leen jubóole dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.